Euh, mbégte bu reuy ñëw fi ci parc des technologies numériques bi euh, pour xol effectivement liguey bi fu mu toll te fa gis vraiment dal na xel bu baaxa baax te xamna suma su dina rendre compte président de la République te vraiment dina content bu baax ci état d'avancement des travaux donc projet la bo xamantene mi ngi ñu koy xayma peut-être sur 46 milliards au départ te tay ji peut-être ak euh, la crise Covid bi ak crise ukrainienne bi ak effectivement situation mondiale bi tax na peut-être il euh, y a beaucoup de produits beaucoup de matériel yo xamantene ne seen njëg yokku na loolu ñëpp xam nañ ko motax aussi dem nañ ba yokku peut-être ay 8 milliards voire bët bët presque 10 milliards bu ci yokku encore ci ci projet bi mais li am solo bu am solo moy projet bi commencé nañ ko 2020 tay ji ñaari ñaari at euh, ak litek gis nañ ne projet bi quasiment léegi mu jeex té bo fi gisee bâtiment yi fi tabax notamment ñetti ñetti tour yo xamantene bu nek 7 étages lay def tabax fi aussi ben centre de data center bo xamantene mom moy gérer tout ce qui est données yi fi koy enregistrer fiñ koy garder euh, amna fi ben même appart hôtel bo xamantene pour am entreprise yu jox ñu ñëw fii bëgg bëgg am fi ben ben séjour wala seen yenn directeur di am séjour effectivement amna euh, ben réceptacle hôtelier bo xamantene ne fi nekk pour lolu bu lolu weesoo aussi amna na yeneen six bâtiments yo xamantene bu nekk R plus 1 la bo xamantene euh, ben yenn pour recherche la yenn pour entreprise là, pour innovation a yenn formation là aussi en audiovisuel ak donc vraiment ak formation même des jeunes donc les lépp fi dajaloo en tout cas pour que société yi bëgg a liggéey wala jeunes yi bëgg a liggéey ci ci domaine numérique bi yëpp tout lépp lu ñu lépp lu ñu soxla am nañ ko fi muy lo xamné ne la ci Afrique de l'Ouest mun naa sax li li am fi mom mun naa ne bi Afrique dëkk yi am am wuñu donc muy muy muy mbégte bu rëy. Euh, muy lu am solo aussi pour euh, fuñ ñu parce que ñoo xam ne xarala yu bees tey fu mu toll ci réew mi donc boo baax na lepp lu ñuy def ñu Sénégal am infrastructure bu toll nii dafa am solo trop pour avenir u avenir aussi réew mi parce que mom ay junni junni emploi lay jur bo fi li fi nek ci bureau rek mën na un hectare ci ay bureau disponible donc am na ñuy def ay recherche am na ñuy def euh, innovation créativité pour xalé yi am na ay centre de formation amna ay bureau yo xamantene pour toutes les entreprises yi nga xamantene dañu nek ci ci domaine xarala yu bees yi muy entreprise mag yi nek au niveau international comme une entreprise yi nek bi biir Sénégal comme start-up entreprise yu door juddu ci ci domaine bi donc ñëpp amna nañ seen place ci parc bi parce que parc bi aussi c'est presque 25 hectares ñaar fuk ak juroom hectares la donc amna assez d'espace amna toutes les lepp nit wara soxla lepp lu entreprise tay ci aduna bi wara soxla tay ci côté technologie côté connexion lepp amna fi donc vraiment muy ndam mu pour réew mi muy ndam bu rëy te inshallah allah président Macky Sall xam naa fii ak euh, ay weer fii ak mois de juin wala plus tard mois de juillet inshallah dina ñëw euh, na fekk liggéey yëpp jeex mu ñëw inaugurer ko